asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV ñoo ngi leen di jaajëfal comme ni ñu koy defee saa su ne bis ne rek chaque jour ñu ngi dem di dugg si gox goxaat yi di wër ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ndaw yi nga xamante ni ràññee nañ leen ràññeewuñ leen xàmmee nañ leen xàmmeewuñ leen am nañ tur amuñu tur Pexxe TV nag di wër di seeti ji ñooñu pour tal leen micro ngir ñu mën a wane li nga xamante ni loolu lañ mëne tey nag ñu ñëw ba fi nga xamante ni moom mooy euh, Diourbel jàkkaarloog euh, benn waay bi nga xamante ni moom ngeen gis si suñuy écran ñu tase ak moom fas yéene am ak moom waxtaan si li nga xamante ni ci lu muy yëngu mu tudd Khadim Diong mais muy wuyoo ci tur bi nga xamante ni Diong Werakaan moom nag mu nekk ci li nga xamante ni mooy maanaam cant gi maanaam cant Cheikh Béthio bi moom si la nekk di def li nga xamante ni mooy maanaam ay woy mais balaa ñuy tàmbale waxtaan bi dañuy bàyyi ki nga xamante ni mooy Diong Werakaan mu nuyoo mbokk téléspectateur Pexxe TV ak ñi koy safoo bu ko defee balaa ñuy gën dugg si waxtaan bi mu may ñu benn woy rek bu ko defee après ñu tàmbalee waxtaan bi jong ñu ngi lay dalal fii ci Pexxe TV. waaw jërëjëf euh, maa ngi leen di saare bu baax di leen nuyu waat waa Pexxe TV te di leen bëggee bu baax di nuyu waa Sénégal gépp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp di leen ñaanal jàmm di ñaanal mun Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ko wér ak euh, Serigne Cheikh Mbacké. sëriñ Saliou Ndigal Thioune sunu la eh, di ko ñaanal mu yàgg fi moom it te wér ñu ngi leen di saare eh, di santaat bu baax ci déplacement bi ngeen ñëw fii fekk fi groupe Jong Wérékane di sëñ Xaadim Jong fa seene waxtaan ak yéen ci way yi ñuy woy sëriñ Touba di ko tagg eh, ba ñëpp di ko bégee ñu fa seeni cee leeral kéem sunu kàttan rek di ñaan yàlla nañ ko yeggale ci jàmm ci barkeb sëriñ Saliou jërëjëf Jongo Wérékane yaakaar naa ni nuyoo bi am na solo lool macha allah donc lu ñuy def balaa ñu dugg si waxtaan bi comme ni ñu ko waxee woon rek ci njëlbeen ba Jongo Wérékane dañ lay bàyyi nga def li nga xamante ni mooy maanaam sa dugg si si li nga xamante ni mooy maanaam waxtaan bi maanaam woy bi nga may ñu benn bu ko defee après ñu yaatal. li ma yëg man ci sama xol bi mooy woyal jamono Serigne Saliou laay waxtaane ay mbiram kawe na li ma yëkk ci sama xol bi mooy wayal jamono sëriñ saaliwu lay waxtaane ay mbiram kawe na way ka mbàkke di sama bànneex mbàkke yaa jara way du wayantu kii lay fental ay wayam jamono domi soxna faat jaxate ngi a jaxate yëngu na delu nan di sant ci yàlla cey borom jamono foofa yàlla feeña ci kaw suuf cër bu rëy la du ndaw cey ku yàlla yee di nga ràññee kii borom jamono dégg naa ñu naan ba mu doore ndaw la daan dimbale bu bayaan seedale cër yee cey borom jamono santumo di rendi di bernde ngir bégal jamono ndole laa ngi yàlla duute ak payam jamono ndole laa ngi yàlla duute ak payam jamono macha Congo Barakaan yaakaar naa ne li nga dugg see moom waxtaan bi nar na neex nar na ala daw mi te nar na yéeme tamit li nga dugg see baat bi macha allah yàlla na ko yàlla gën a wéral te li nga fi wax tamit am na solo lool li nga fi tib li nga fi baax comme way donc bu ko defee Congo Barakaan ñu buggoon xam bon yow depuis kañ bon dama balaa maa wax depuis kañ nga dugg si li nga xamante ni mooy maanaam cant gi Congo Barakaan lan moo ko inspiré ba à que moom mu dugg si cant gi. jërëjëf Gris maa ngi lay béggewaat bu baax ci laaj bi di santaat rek. Euh, cant gi moom ni koy waxee saa su ne mooy yàlla rek ndimbalul yàlla moo nu ci dugal te lépp di sëriñ saali ndax ba ñuy doon ba ñuy doon tuut tànk ba léegi ñoo ngi ci euh, xëy na nag jamonoy 2000 wala 99 lañ dugg ci cant gi ci waxtu woowu lañ tàmbali di woy tàmbali di roy di roy ba yàlla dimbali ñu bañ man di fent ay woy yoo xam ne day jëm ci sëriñ bi te day saf ñëpp loo gis nag am na ak ak tàmbali euh, man jong werekaan nag foofu laa tàmbalee euh, di roy ñi nga xamante ne ñoo jiitu ci cant gi ku ci mel ni Ibrahima Diagne ñu di ko way ñu di ko roy ndax ay woyam daf ñu neexoon lool ba ñëpp sax daanu ñu wooy Ibrahima Diagne ndax man guñ ko mënoon waaye bi yàlla dogalee nag euh, ñu tàmbalee gëm sunu bopp xam ne lii kat mbirum Serigne Touba la ñëpp xaj nañ ci. ci la ñu tàmbalee nag di bind suñuy way euh, tàmbalee nag gëm suñu bopp créer suñu groupe muy group Jongu Wérékane ñu doxal jëm ci cant gi ndax cant gi moom daa yaatu kenn ku ci ne am nga foo ci mënee ñii ñi ngi ci xaside yi ñii ñi ngi ci alxuraan ji ñii ñi ngi ci tàgg Serigne Saliou ñun nag ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy tàgg Serigne Saliou ci ndimbalul Serigne Béthio mi nga xamante ne bii mënu ci tàggat ba nu agsi fii ñu agsi jaajëf am na solo dama la bëggoon wax bon lan mooy li nga xamante ni mooy maanaam at bi nga dugg si cant gi yaakaar naa ne wax nga ko muy atum 2000 mais jong nga dugg ci cant gi ñu lay bàkkante ñu lay bàkkante ki nga xamante ne mooy Ibrahima Diagne bon lan lan nga gis ci Ibrahima Diagne ba asaka nga ko doon roy ci cant gi. waaw Ibrahima Diagne moom bari na woykat yu ko yu ko yu ko yu koy roy ci cant gi ndax xam nga dafa bokk ci ñuy jiitu. doon sunu magum taalibe yàgg ci yëf yi bari xam-xam lool tamit te mën a woy euh, mel na ni euh, moom xam nga nit ku ci ne am nga idole am nga koy roy am nga koo bëgg mu neex la soit muy budul ci cant gi sax di feneen waaye man moom dama ko yàgg a topp ni ma koy waxee saa su ni daanaa bind ay woy yu bari waaye daaw mu ko nangoo woy ndax moom ay woyam laa gënoon a opté wu di ci woy Euh, ndax euh, dafa daf mosaan génn album màggal ndax màggal màggal ba màggal la daan génne ñu mosaan fent rek daanaka dañ koy tegedale ndax album bi day day day am barke ba pare day day siiw day neex nit ñëpp dañ koy bëgg bu ñu demee cant li ñu njëkk yàkkamti moo mooy mooy na nga way albumu Ibrahima Diagne bu bees bi mu doonoon koo xam ne ku yàlla dimbale la ci way man nag ci moom laa doon roy di ko roy di ko roy ba euh, yàlla dogal comme ni ma ko waxee léegi ma am sama air bopp idéal boobu daal ci moom laa jëloon waaye nag fi mu ne yàlla dimbal nañu màgg nañu màgg nañu ba mën a am suñu yoonu bopp boo xamante ni bii euh, ñëpp bu ñu bindee li ñuy bind day tege ci yoon ku ko dégg day xam ne kii kat am na ndimbalul yàlla foofu daal lañu ñu jaar ba agsi euh, Jongo Barakan balaa ngay dugg ci cant gi da nga daan woy avant nga ciy dugg wala yow da nga dugg ba pare soo ko woy waaw man moom musuma woy man ci cant gi laa laa jànge woy dëgg la sama waajuru góor amoon na jamono ci euh, loolu yàgg na ñu ko fekkee ñoom ko wax daana woy ku neexoon baat la maa koy ñaanal yàlla na ko Serigne Touba dolli leer ku neexoon baat la daana woy xëy na loolu am na lu ma ci jëlee waaye man bi ma tàbbee ci cant gi rek laa tàmbali di woy waaye man koo xamante ni laata may dugg ndax bi may dugg cant gi euh, taxul samay at bari taxul samay at bari euh, bi ma ci sooboo nag mbooloo mi bari nañu waaye dafa mel ni mën na ci yàlla seppi ma doon werekaan di woy sëriñ bi ñëpp ràññee ma ko bu cant amee jurbel dañ may woo na maa am na kat te yow yaay werekaan bi faaw nga ñëw ñu ànd ak mbooloo mi daal dem cant gi man leen a woyal sëriñ Saliou waaye moom ci biir cant gi laa jànge woy ci ndimbalul sëriñ bi Euh, ci laa xamee nu ñuy woyee ci laa xamee euh, nan lañuy ñuy daajee ak fan la ñuy daanelee loolu moom ci cant gi rek laa ko xamee. ba nga dugg di ci woy tamit bon lan moo la ci dugal da nga gis ni bon dafa am xaalis walla amour la. waaw sant rek euh, ak bëgg la rek ak bëgg sëriñ bi te it mu doon dogal yàlla waaye xaalis moom dugaluñu ci amour mu ngi ci ndax loo gis balaa muy mën a continuer sax il faut nga am ci bëgg mooy amour bi ngay wax. bu amul du sotti bëgg nañ sëriñ bi eh, am nañ yéene liggéeyal ko eh, ñu ne nag eh, ñun ñun ñun dañoo tànn di ko woy ni ni ñuy jàng xasida di ko di ko durus di ko yékkati noonu lañ ko mën a woyee ñu ne nag ah ñun kon nanu nanu nanu jël di woy sëriñ Saliou way gi dañ ci am amour bëgg-bëgg la xaalis moom mënuñu cee nekk ndax xaalis boo ko bëggee jàpp naa ne da nga def leneen waaye nag xéewal lañ ci xéewal yi mooy euh, léeg nga woy nit daanu yëkkati lu ne jox la ko ndax li ma ko ni ma la ko waxee léegi ñun kenn mënuñoo fay ndax mbirum sëriñ bi lañu yor sëriñ bi nag amul fayee ko donc da ngay barkeelu rek noonu rek la demee. am na ñu bëri ñi nga xamante dañu naan cant gi bon sëriñ euh, taalibe Cheikh Béthio yi ñoom maanaam lekk bi lekk bu bari bi <laughs> moo leen si dugal maanaam dañuy gis ni Cheikh Béthio fu mu dem day rendi di bernde xam nga jongu werekaan est-ce que su ñooñu la bokk wala bokkul lool su ñooñu waaw jërëjëf euh, ci laaj bi euh, bernde yi moom daa yaatu yaatu na yaatu waaye boo xam ne ñëpp xaj nag yi bari na gileem yi bari na. mais yow bi moom lekk bi dugaluma ci <laughs> man moom xam naa ne dogal yàlla ak ndimbalam rek euh, dëgg la nag bernde yi daa barkeel sëñ bi danaan bëgg ñu barkeelu bu baax ndax danaan wax cantuk sëriñ Saliou gi ku lekk ci bernde yi rek texe. ndax su ma fàttalikoo am na ci màggal goo xam ne nag yi nu berndewoo ci màggal googu xel kom la jóge sëñ Saali woo yar nag yi ba gërëm leen wàcce leen jox sëñ becco nag yi moom la ñu màggale sëñ bi waxoon na ne nag yooyu day ku ci lekk texe ga xam nga yooyu bernde boo ko teg yeneen bernde moo tax euh, dañ dañ ciy xër nag ndax euh, bernde sëriñ bi moom ku ko tiim ku ne man caa barkeelu bu baax a baax waaw macha allah c'est Jongu Berakaan am na solo loolu mais Jongu Berakaan dama bëggoon xam sa relation ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si cant gi maanaam naka la mel maanaam rattax na wala am na ay yank-yank. waaw waaw aw ma kenn benn jafe ndax ñun ñëpp ay bokk taalibe lañu ñoo bokk fu jëm ñoo bokk lu ñu bëgg te loolu mooy Serigne Touba euh, aw ma benn benn jafe-jafe xanaa rek euh, woy yi moom euh, ba may gën di nekk xale daanaa ci am jafe-jafe ndax. xam nga boo boo amee bëgg-bëgg ci li ngay def am ñu jóg euh, mel ni dañ la ko bëgg a xañ faw coow bari loolu rek moo ma daan jotali ak nit ma nga war maa jox sama cër joxoo ma ko moom mbir mi day daal di kéemaanu waaw loolu moom. maanaam da waaw damay jàmmaarloo faaw ma avancé wu wane nag lii moom maa ko moom da ngeen ma ko war a jox jafe-jafe bu amee foofu la doon am te léegi li ci ëpp loolu dañ ndax xam nga boo loo gën di màgg. da ngay gën di am euh, xelum expérience xel mu rafet ak xam fi ngay jaar nit ñi xam dugg-dugg yi noonu rek la demee waaye amuñu jafe-jafe ak kenn waaw. macha allah yaakaar naa ni loolu am na solo mais bu ko defee dañuy dugg feneen mais balaa ñuy dugg feneen dañ lay bàyyi nga def li nga xamante ni mooy maanaam beneen woy ñu xool bon tey par rapport ak li ñuy wax werekaan ci waxtaan bi ma xam loolu c'est confirmé ou pas. ku texe mooma billaay bu ñëwul woon kenn du raw Serigne Saliou Mbacke jërëjëfati ku texe mooma bu ñëwul woon kenn du raw Serigne Saliou Mbacke jërëjëfati ku mucc mooma ku Serigne bee coy waxal yaa war a xam Mbacke ma dellu seeti ki sëriñ saal seet si woon ca tool baayam mbàkke lu yëngu mooma nam ko ma doo ko gi sëriñ saaliw mbàkke jërëjëfati ku mën a dem dem ki mën a yóbboo ngi ni sëriñ saaliw mbàkke jërëjëfati mu fekki waaji ba baay isma ju fala mbaake jërëjëfati ku texe mooma bu ñëwul woon kenn du raw Serigne Saliou mbaake jërëjëfati macha allah macha allah jong werekaan yaakaar naa ni li nga fi wax am na solo lool ñaari way yi nga fi way am na solo ma bëggoon xam tamit bon tey yow euh, say way si ban côté li gën a féetewoo maanaam si côté maanaam yeet nit ñi wala da nga jëlaat ay bind Serigne Touba di ko way euh, di ko indiwaat ci olof waaw jërëjëf euh, maa ngi lay béggewaat bu baax wayi moom mooy ni ma koy waxee saa su ne rek euh, man dama jàpp ne rek lépp ndimbalul sëriñ bi la yàlla na ma dimbale rek ab jaamam dimbale ko muy man bu may inspiré wu nag ci mbindum sëriñ bi rek lañuy ñuy inspiré wu ndax mënuñoo génn sëriñ Tuubaa ci moom la ñuy tàmbalee waaye ci moom la ñuy yem. way yi lépp ci moom lañ koy jëlee ndimbalam la euh, bu jamono dox ñuy gën di yër mbindum sëriñ bi di ko gën di way ñuy xool euh, jumtukaay yi nga xam ne jamono da koo indi euh, te mu méngoo ak sëriñ bi te ñu xam ne dañ koy gis ci sëriñ bi ñu di ko way mm, di ko di ko wasaare ci jamono am na sax benn air boo xam ne am na bu ma daan esagaram sinap ay mbiru jamono indi la nan ko ci xoole sëñ Saliou Instagram Snap ay mbiru jamono indi la nan ko ci xoole sëñ Saliou programme ko man nga ma woo ma wuyu laa woo ma ci sëriñ Saliou telegramme ko ndax vidéo ya tanzil laa bëgg a baaxe jamono bu ñu tuddee sa ngeen di ko xoole xar baax yi mënu baaxe jamono jamono rek dox bur yàlla di wane xereñam xar baaxi borom jamono. xam nga loolu. maanaam maanaam yow da ngay mise à jour mbir yi maanaam jamono fu mu toll rek yow maanaam noonu ngay maanaam xalaatee di génn di si fent say way eh, waaw kay noonu la demee ndax xam nga Instagram Snap dafa xew eh, téléphone boo seen eh, yi surtout yi xew dañuy am Instagram am si Snap. Euh, waaye su ma koy woy ci cant programme euh, mbooloo mi tubarkalla dañuy bëgg ndax dafa méngoo xam nga soxna yi moom dañuy bëgg di sinap léegi nag dama leen di wax nañuy sinap ci Serigne Saliou bu ko defee ñëpp yëkkati téléphone rek di sinap moo tax euh, dañ koy inspiré rek ci Serigne bi du du du am po mais xam nga maa ngi yaa ngi dégg ma naan bu ñu tuddee sa tur ngeen di ko xoolee xar baax yii mënu baaxee jamono xar baax yi mooy téléphone yi xew. technologique bi ni muy yi xew ci jamono ñun dañ ciy xool Serigne Saliou moo tax ma woyee ko noonu moo tax ni nga ko ni nga ko wax sa bi dafa am solo ñun euh, dañuy inspiré wu rek fi jamono toll waaye day méngoo ak Serigne bi. macha allah donc yaakaar naa ne loolu am na solo te li fi génnee léegi tamit loolu nekk na li nga xamante ni ku dul xalaat du ko mën a indi te yaakaar naa ne lii xalaat kat dëgg moo koy joxe donc ma buggoon xam euh, Jongu Wérékane tey ku ko doon yëkkati maanaam pour mu ñëw di ko woyal si cantam wala xewam wala programme am bon day laaj prix bu bu mag wala jong dafa dafa dafa dafa lépp léppam gratuite. waaw sat rek euh, moom moom euh, daanaka du du du du du doon lu jafe ndax groupe jong werekaan ay ndaw lañ yu am yéene liggéeyal sëriñ bi waaye képp ku ñëwoo ci sa xew mu doon ay ak cant goo organisé mu doon mariage mu doon ngénte ak lu mu mën di doon rek du doon lu jafe. ndax ñun ni ma ko waxee léegi suñu lépp dañ ko bëgg ak àcc yërmande yërmande lu mu lu mu amul du dem te jong werekaan ci yërmande la ñuy dox képp ku ñu soxla na nga xam ne doonul loo xam ne day jafe dañ la koy yombalal ba nga am mbégte suñu ñëwee nag danga nga bég loolu moom xam nañ ko ndax yàlla dañoo dimbale ci mbir mi ci way yi ñuy woy sëriñ bi tëbuñu rek wala ñu am bëgg-bëgg am amuur ne dañuy woy sëriñ bi di ko woy dañoo dem ba yëg ne lii yàlla nattoon yàlla nattoon nañu ko waaye mën nañ ko ñu tege ci te képp ku ñu woo ci sa xew yàlla dogal na bu ñu paree di nga di nga bëgg ba yow lan ñu diggoon sax danga ko yokk loolu moom ab liggéey la boo xam ne yàlla dimbal nañu ci te saa su ne ñoo ngi ciy dox saa su ne mais ku ñu woo ci sa programme na nga xam ne moom lu doon lu jafe danañ ko def ci yërmande ba lépp yëpp. kon Jongo Werakaan nekkul yow kese maanaam benn groupe la. damaa am ñu may dimbali ci xel man nag maay njiit li man maay woy ñooñu sax maa ngi leen di nuyu di nuyu saa mag ju baax jëwrin mu jong maa ngi koy saare di ko ñaanal jàmm tawféex ak ñu wax isaa Ñing euh, sëñ Moussa ñooñu ñëpp bokk ci samay manager bokk ci ñi may xelal euh, sëñ Ablaye Diop Guy Ndiaye sëñ Modou Guèye ca Mbour sama xarit bokk ñi nga xam ne dañ dañuy jàppale groupe lañu am soxna yi soxna Sukay Nabu Say Nabu soxna Awa Thiam Awa Mbay mënumaa lim ñëpp waaye soxna nday xaru groupe lañ boo xam ne dañu ay ndaw lañ léeg-léeg ñu ne ma nañ def nii nañ dugg fii fii war nañ faa dem yaa ma gën a xam yi fi ni muy doxee noonu la demee waaye nag man ñu maa njiit li eh, buñ jëlee décision décision dañ koy ànde waxtaane ko ba mu yemb ñu mën caa dem macha allah am na solo bon ñu dugg feneen fi nga xamante ni maanaam yaakaar naa ne loolu tamit si biir cant gi la parce que ku ci mel ni euh, lu ci mel ni ay woykat dañ cee bari lu ci mel ni ay woykat dañ cee bari. jong werekaan moom naka la def ban stratégie la teg ba tey moom mu mën a génn fës ba nit ñi mën ko ràññee maanaam concurrence bi laay bëgg a wax. waaw sant rek gidi ci laaj boobu euh, woykat yi bari nañu waaye kenn ku ne ak méthode bi ngay woye kenn am na ci ñoo xam ne seeni woy beneen façon la man tamit am na woy am na am na méthode bu may woyee yow boo ma dégloo xam ne kii am na méthode bu muy woyee euh, xëy na nag concurrence mënul ñàkk ci mbir moo seen cant gi am na concurrence ndax ñii dañuy sopp kii ñii sopp kii ñuy sopp kii man am na ay soppe ci cant gi ak feneen fu dul ci cant gi ndax man yëmu ñun yëmuñu rek ci benn barab yoonu murit ak fépp fu nu woo rek dañ ni uyu bu ñëwee nit eh, nit mën a woyee sëriñ bi noonu lañ koy mën a woyee waaye concurrence bi moom lu munul ñàkk la ci barab yëpp waaye nag ñun moom fi ci féete ñoo ngi sant bu baax am nañ ci ay ndam dañuy doog a tàmbali rek di di ñaan rek ñu ñuy seetaan ñëpp ñu ñaanal ñu ñu gën a avancé ci kanam ndax am na lu ñu yéene am na lu ñu bëgg. ok macha allah am na solo donc ba léegi damay desaat si li nga xam te mooy cant gi cant gi maanaam ñu fi daan gis benn waay buy doon wuyoo si turu Mouhamed Niang. mais à un moment mu def benn vidéo sorti mu ne moom Serigne Saliou la yàgg tàgg moom lay nekkal donc mu ne woon dafa organiser woon benn euh, genre ndaje bu mag mu invité si cant cantaakoon yi ñëwuñu donc moom tamit mu beddoo ko génn donc tey yow mi nga xam ne yaa doon dund ak moom sa cant gi boo gisee loolu lan nga ci mën a joxe comme càngat. waaw jërëjëf euh, loolu moom mel na ni duma ci sori ndax ñu ma koy faral di waxee rek ñun ay taalibe lañu donte nag ñu nag moom daanañu toog ci cant gi nii toog ñu dend nii waaw loolu lépp day am waaye nag euh, jafe-jafe boobu moom xëy na sori ma ci sax dégg laa ci am comme ni nga ko déggee histoire bi fekke naa euh, nag euh, ak sëriñ bi toog ay wax waaye yooyu yëpp xam nga du jaraat jaar ni ma ko jàppe rek mooy ñun ñëpp ñu ngi ci sëriñ Saliou ndax Mohamed li muy woy sëriñ Saliou rek la te sëriñ Saliou moo sos cant gi ni sëñ Béthio ni ni sëñ Béthio mel sëriñ Saliou ko ni melal Euh, damaa jàpp ne euh, mi ngi ci biir ba léegi ndax lépp di Serigne Saliou waaw waaye nag euh, jafe-jafe boobu moom sama xam-xam soriwu ci ndax jàngatuma lépp ba mën cee leeral lu bëree bëri. mais mënuñu waxtaan ba jug fi te dañu waxtaanee li nga xamante ni tamit mooy maanaam tey nga doon nekk ak Serigne Béthio Thioune nekk ci kaw su di dund mu xëy génn àdduna ngay woy tey yooyu loolu lan nga lan nga yëg booy woy si absence su Serigne Béthio Thioune. waaw sant rek euh, sant rek euh, mënul ñàkk ko toll ni sëñ Béthio moom boo ko miinee mu xëy rek dëddu ci saayir faw mu am lu mu def ci yow loolu mënul ñàkk waaye nag euh, mel na ni ginnaawam la gën a rafetal sax ne bi mu fi nekk ndax ab sëriñ boo ko gëmee mu mat li mu doon bu la wanee ginnaaw ak bu la wanee kanam mooy mooy doon mooy doon benn ci yow xëy na nag jëmmam jë jëmmam ji mënee su ko remplacer dañ koo miinoon ndax toog ak sëñ Béthio rek dàq na lépp euh, bu may woy ba di ko léeg ma woy sentir ne daal euh, sunu sang bi amul moroom ndax fi ñu jaarale ak li mu def ci yow doon ay ndaw boo déggee ni ñuy woy rek naan ñi xanaa dañ leen di bindal li ñuy wax fekk lépp ndimbalam rek la lépp ndimbalam la euh, manqué nañu nag waaye nag jooyuñu ko ndax taawam bu baax bii di sëriñ Salim Ndigal Thioune ndax lépp lu sëñ Bethio doon def benn tey mi ngi koy def ñaar ndax mbirum sëñ Tuubaa day day day day continuer nekkul luy taxaw sëñ Tuubaa sax wax na ko nee na sama tey junne day man sama démb kon yëf yi noonu rek la demee amul den dara loo xamante ne bii mi ngi mi ngi mi ngi arrière mbaa ñu ciy jël benn paawu ginnaaw way yi ma doon way yi nuy woy ci kanamam bi mu dëddoo daa gën a yokk waaye wàññeekul donc euh, ba léegi ñuy des si cant gi ba léegi ñu des si li nga xamante ni mooy maanaam li nga mu absence su Serigne Béthio si Zahir maanaam comme ni nga ko waxee tey ñu gis ni ni Serigne Béthio ba mu génnee àdduna kër gi dafa mel ne dafa jaxasoo dafa mel ne dafa yëngatu dafa am ñu far ak ki nga xamante mooy Serigne Saliou Thioune ki nga wax léegi am ñi nga xamante ne ñoo nekkee côté Soxna Aida tey ngeen nekk si cant gi Serigne Béthio génn àdduna kër gi yëngatuwoon nii ban jàngat nga si amaat. waaw sant rek xam nga sëñ bi moo toll noonu dama koy tënk rek sëñ bi moo toll ndax ginnaaw mënul ñàkk coow euh, boo xoolee Serigne tubaa mi yaa mi nu yaakaar ñun ñëpp te mu waral coow li euh, bi mu làqoo am na coow lu gàtt rek lu amoon waaye soriwul mbiram moo koy lijjantil boppam euh, ni ma ko waxee léegi ñun ay murit lañ te ndigal ci la ñuy dox mun taxa Bassirou Mbacké mooy xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te mel na ni moom. daa joxe ndigal ñun toog nañ ba tàyyi sëñ Béthio ne xalif général des mourides lim lu mu leen digal na ngeen ko def xam ne Serigne Touba leen ko sant loolu nag ci la nekk euh, man murit laa ndigal laa jëfee euh, coow loolu bëri na euh, ci Sénégal lu mu yëngal waaye man yëngalu ma ndax am murit laa dama woy rek xool fi sëriñ bi joxoñ ma daal di tàbbi foofee te foofu mooy ci sëriñ Saliou ndigal cuun moo tax ñi ngi foofu Euh, fas yéenee bay sunu waar rek ci sëriñ Saliou Ndigal Thioune lu ñu sant ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko. am na benn euh, xibaar bu ma taataat si ñi nga xamante mooy cant gi am na si ñi nga xamante ne dama leen laaj ba ma leen laaj ñu ne ma soxna Aida boo gisee ñu topp ko c'est parce que. ba fi sëñ Béthio di nekk dafa da ko da ko tegoon dafa tegoon fenn fi nga xamante mooy maanaam jëwriñ universel donc jëwriñ universel boobu mu nekk maanaam ba léegi si lañ ko toppee maanaam xëcc wut pour affaire man maay jiiteeg yooyu noonu mais poste bi mu nekkoon muy jëwriñ universel ba léegi moom lay euh, ba léegi moom lay moom moom lay liggéey ba léegi posture boobu la yore ban jàngat nga am si jëwriñ universel ni nga ko waxee noonu rek la demee xëy na euh, mënul ñàkk coow moom bari ci ginnaaw sëñ bi waaye jàpp naa ne lépp moo koy réglé Eh, xam nga man ni ma la ko waxee léegi rek eh, man ab taalibe laa ci ndigal lay dox am na ci xeetu eh, point boo xam ne duma ci duma ci tàbbi ndax sama xam-xam yaatuwu fa sama gis-gis soriwu fa li ma mën a gis daal te gëm ko mooy ndigal ci laa nekk ci ndigal lay dox ci ndigal rek laa yem. maanaam kon yow su ma déggee li nga wax maanaam doo far fii doo far yow ñëpp nga àndal ñëpp nga nekkal képp ku fi nekkal Serigne Touba rek yow nekkal nga ko. waaw Serigne tubaa moom ñi ko fi nekkal mooy ñuy jëfe ndigal ñooñu rek ñoo ko fi nekkal euh, Serigne Mountakha mii mooy Serigne tubaa moo fi nekkal Serigne tubaa lu ma joxoñ rek ñun ña nga foofu waaw foofu la ñu nekk euh, nee na ñu topp Serigne Saliou ndigal Thioune te wax na ko ne euh, di nga am ndam te yaakaar naa ne ñëpp teg nañ ci seen bët ndax màggal tubaa gis nga nag yi sëñ Béthio daan jiital nag yooyu rek la Serigne Saliou Thioune di jiital ba léegi ñu ànd ko ak moom kon ñun ñi ngi ci moom jóguñu ci moom. ci moom la ñu sax incha allahu rabbi fas yéene ànd ak moom liggéey bi. macha allah yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo te liñ fi waxtaan yëpp nekk na li nga xamante ni moom mooy njëriñ maanaam dañuy def li nga xamante ni mooy maanaam dañ koy tëj mais balaa ñu koy tëj dañu la bàyyi nga tëjee ko ak benn woy. santaat sëriñ bi rek tey ñaan mu yàgg fi te wér di di wax sénégalais yëpp rek ñu jàppale ñu te xam ne ndaw laa loo xamante ne bii euh, liggéey sëriñ bi rek ñu yëkkati woon ñëpp ñu jàppale ñu. bëgg nañ ñëpp jàppale nu ci kàttanug Serigne Touba ndax woy yi ma koy woy moom ko dimbalee du pexe kenn du sama mën-mën du samay du dara damay jàpp ne rek ndimbalul Serigne Touba la kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ñëw jàppale nu ndax ku nu jàppale rek nga mën a dem kon ñun groupe Jongu Wérékane maa ngi woo ñëpp xajal naa ñëpp ci sama groupe bi ñu fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci tagg gi ñuy tagg Serigne Touba di ko way ngir bëgg ñëpp rek. jullit ñi ndax sëriñ Tuubaa ñëpp ko bokk xéewal la goo xam ne yàlla moo ko indi kon daal samay kàddu mujj mooy di di di bégal mbokk taalibe yi di fan yi ak sopp yi maa ngi leen di saare di leen di leen jox ay rendez-vous yu baree baree bari yoo xam ne am nañ yéene dem fépp fu ñu war a tàgge Serigne Touba ñu war faa dem surtout Grand Théâtre Sorano eh, événement yi mi ngi sunu kanam danañ ko waajal incha allahu rabbi liggéey rek liggéey rek la te danañ ko waajal maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp tey laa lay woyal ba nga yow mi am sëriñ saaliw tey laa lay woyal ba nga mi am sëriñ saaliw ti tërul di yaale di bég naan sëriñ bi rekk ma may xool sa doom ji nii mu ko def bii sëriñ du gaañi ma gis bul ko romb moo di jëmam lamp faala ngi du fi doomi soxna baam bi du gaañi ma gis file sang bi te laa lay woyal ba nga bég yow mi am sëriñ saaliw